82% des élèves de Mbacké viennent de Touba et nous les prenons en charge te loolu amul benn cadre juridique bu permettre à la commune de Touba pour mu mën a participer ci dépenses yi nga xamante ni ñu ngi koy continuer di dépenser pour la prise en charge de ces élèves kon yàgg nañ ko joytu nag ci fànn yu bari mais. ba léegi amagul benn résultat bu ci teg ci wàllu wér-gi-yaram tamit position géographique bu Mbacké ak accessibilité am par rapport à certaines populations de Touba mooy tax lu ëpp ci population yi Touba yi Mbacké la ñuy fajoo. dëgg la à de pour cent études yu ñu ci mujjoon def. te loolu ñun ñoo ko jël en charge ci wàllu médicament ak ci fànn yëpp. boo xoolee ci côté nettoiement bi aussi élèves yi nga xamante ni dañuy jóge Touba dañuy taqal sportif yi dañuy taqal ñu fay ñëw ñëpp dañuy taqal te ñun ñooy obligé di nettoyer te loolu dafa laaj personnel ci côté ndax finalité bi lépp mooy personnel bi ak moyens yi boo xoolee toutes les activités de liberté publique buñ koy def dañ koy ñëw def si Mbàkke di dëkk bi di taq te loolu aussi dafa laaj personnel bu ko nettoyer ak ay moyens wante ci wàllu sport aussi ak li nga xamante ni sur le plan politique tous les meetings dañ fay ñëw def fa meeting taqal foofu dem seen yoon. kon te ñaari dëkk lañ yoo xamante ni historiquement ils sont liés parce que genn kilifa lañ am muy Cheikh Amadou Bamba. géographiquement co-urbanisation la parce que dañoo taqaloo mënatu xamatuloo frontière kon ma bëggoon monsieur le ministre loolu ñu am jàngat bu bees buñ ci def vers l'intercommunalité pour permettre à ces deux mën a am wax dëgg yàlla statut bu leer bu leen mën a jokkale pour ñu mën a fusionner seeni doole pour mën a tamit jël en charge ces dépenses yi nga xamante ni métti na lool. bi may daanelee monsieur le ministre en 2014 sa prédécesseur dafa jot instruction du chef de l'État pour tabax benn hôtel de ville à Mbacké bañ procédé woon pose première prière mais jusqu'à aujourd'hui avancé wul te lañ ci gën a métti mooy. fañ koy def ay nit ñoo fa doon liggéey ay vingtaine de personnes garage ñoo fa nekkoon di fa daan seen doole ñu dëgër piir leen ci condition yu metti ba ba léegi dara nekku beneen bi ci des mooy le stade de Mbacké ndax dama jiite askan woo xamante ne dañu exigeant yu bare bare bare bare te segam ce ministère la moo ko porté woon à l'époque bien vrai que président joxoon na ko sa naatango le ministère de sport mais aussi ñu ñaan puisque yeneen suñu tutelle pour que ngeen jàpp ci pour que vraiment ces travaux là soient démarrés